Rewmi 24 TV dal ak jamo ci xibar mo melne ki nga xamantene rek mom moy maître ngagne demba ñu bari ci askan bi rawatin patriote yi di ko wowe mbappe ngir rek xarañteyam ak liggéeyam bu am solo bi nga xamee ne mu ngi koy def mom mi nga xamantene rek mom moy maître ngagne demba mom nak nag jamono yi dal dina nak nek directeur général euh, de la société des mines du sénégal moom la ñu nag nga xamantene rek mom moy maître ngagne demba doon lo ñu bari jamono yi ñu ngay rek rafetlu di wax ne rek daf ko mérité ndax rek liggéeyam ak rek bëgg réewam ak patriotisme bi nga xamante ne rek moom la àndal moom mii nga xamante ne moom mooy euh, maître Ngagne Demba Touré kon daal fii ñuy wax ak yéen nii moom mooy directeur euh, général de la société des mines du euh, Sénégal mu doon loo xam ne ñu ci askan bi yi nag ñu ngay rek rafetlu li nga xamante ne daal dinañ koy tabbu maître jëm Demba Touré mii nga xam ne ñu bari dañ koy woowee rek mooy Mbappé ngir liggéey bu rafet boo xam ne mu ngi koy def.